waajalu daaba maskana taalumi wa mawdi al fikrati wa tafawumi daara ji ci boppam sëb sët moo ko sanc di mam baara ñu tuddee ko daara xidmatul xaddim sëñ Saaliw moo ko tuddee ca xel ko ñu ñëw juróom-ñaari nit lañ sàmm tey daara ci boppam ñaar téeméeri nit ak ñaar fukk ak ko nañ ci alxuraan téeméeri nit ak juróom fukk bind nañ fi kaamil ma bëgg nga ñaanal ñu ak kattan ñu liggéeyal la ji liggéey bi ngay liggéeyal Serigne Touba te xam-xam boo ko xam lekk alxuraan daan teral ñëpp ñun ñu bokk ci sañ njaboot doon taalibee Serigne Touba fas yéene ànd ak yow liggéeyal boobu nga ñaanal dong yàlla def ci ñoom barke sëñ Moustapha Bay Sis moo sañtoon daara ji ci Mbàkke Baari bi mu génnaat man ma sos ko ngir fas yéene àgg la yéeneem te ndax sëñ Moustapha moo daan dundal ñu fa nekk man mii fa laa bindee kaamil sama kaamil bi mu jox ko sëñ sëñ ma xam ne kon sama warteef la ma dundalal ko daara jooju ndax daara ji am na ñaar ci Touba am na Mbacke Kajoor am na Kër Diop am na Mbaam Jigaan ak yeneen ñeenti daara ñu fa séene def lépp nag ñu fa séene ko ànd ak yow jërëjëf Mbacke gas gas nu nga nu ci daal suñu xel bu baax ndax nii donc mu dee lan lan ko bëgg am waroon am benn yëngutu lu dul nekkal Sëñ Tuubaa ci ni mu ko bëgg ci ko bëgg ci noonu nag noonu mooy mooy sa bi loolu moo ngi mébét yàlla duddal fan loolu lool ànd ak yore kàttan moo ngi mébét itam suñu borom bareel mel na yow ci yoon bi gën sañoon ku ñu tudd Sëriñ Tuubaa rek da nga góorgóorlu jéem koo ko koo gën a xam jéem ko gën a dund. loolu nag nañ nañ koy yoon bii rek les mën a am bopp ba loolu mën a am. tegu ci saatal mustaqim kem kattan. parce que doon taalib Sëriñ Tuubaa itam loolu ñaar yooyu rek la. alhamdulilah rabbil kon loolu ci lii xamal na ma ne ci loolu ngeen noonu laa rek xamee woon sax noonu laa gisee waaye maa ngi door a gën a xam nag na nga jóge dëgg-dëgg ak ak ni ngay dox waaye noonu dong la nag li ñu war a mébét rek mooy ku ñu ku ñu tudd tudd Serigne Touba rek aw yoon bii nga aw ndax loolu rek ci ci ren mën a nekk ci kanam ñu ñu ñu ñu gis gis ci ñun li Sëñ Tuubaa bëggoon rek loolu mooy tax mën a nekk royukaay la ca gën la ca la ca gën a dolliku mooy yoon yoon woowu rek la ñu war tegu waaye da ci am beneen masuula yi boo xam ne leneen leneen lu ci war loo xam ne taalibe yi ñoo ko ñoo ko waral ñoo ko waral waral ci ñun seen bëgg sëriñ Tuubaa mat na sëkk seen doylu doylu doylu sëriñ Tuubaa mat na sëkk gis gis lu leen doy dëgg lu lu lu lu lu lu leen mën a wàmm dëgg ci ci diine ku taalube loolu rek moo leen mën a dimbali loolu lépp nag desul nii nga def waaye dafay mel ne sa taxawaay bi képp doon la yaakaar nga yaakaar ci li li nu war ci suñu diggante seen kon ak ñu ngi sant ñu ko ñu lay kañ bu baax a baax sàmm la fi aar la fi bàyyi la fi yàgg la fi lool nga am mbir kàttan boo ma waajalu daaban maskana taalumi wa mawdi al fikrati wa tabawni